wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat mbokk julli yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki commission sociale bu Touba kanam ci njital sëriñ Mourtala moom sëriñ Abdul Fattah di delluwaat di santaat sunu borom bu baax a baax a baax tey gërëm sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Xaadimu Rasuul xam ngeen ne dëgmalati nañu bés bi nga xam ne mooy social ramadan di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars ñu di ko amal at mu jot commission social di tànn ab lim bu takku ci bokki taalibe bi nga xam ne yitte woon nañ ku leen taxaw waaye yitte woon nañ ku leen bayyi xel waaye musu cee wét nag saa bu gëstoo gis jàmbaaru sëriñ Tuubaa yoo xam ne lu ñu seen commission sociale bu Tuubaa ca kanam ñanga ca sëriñ Suley Jaaj mii nag kenn la ci ñoom ndax waxtu wu nekk bu commission sociale jógee rek mu jóg mbokk yi defati na maninam te yàgg na ànd nag ak commission sociale bu Touba ca kanam rawatina ci social Ramadan tonu ceeb yi nga di gis Serigne Souleye Diagne moo ko yëkkati jébbal ko commission sociale bu Touba ca kanam ngir lan mu jottali ko bokki talibi nga xam ne yitte woon nañ lool ku leen taxawu mu jottali bokki taalibe nga xam ne yittewoo nañ lool ku leen taxaw mbokk yi kon Serigne Souleye Diagne jàmbaaru Serigne Touba di jàmbaaru social commission sociale wu Touba ca kanam ci njiital Serigne Mourtala moom Serigne Abdou Fattah ak jàmbaar yi nga xam ne ñoom lay àndal guddi di ak bëccëg di góor di jigéen foo leen seen ñuy dem ci te askan wi rek la ñuy nekk mbokk yi jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi commission sociale bu Touba ca kanam ñu lay sant bu baax Serigne Souleye Diagne yóbbante bu yegsi na mu ngi nii commission sociale dana ko jottali ñi nga xam ne ñoo ko yittewoo te yaatu lool kon ay ca mburit bu kenn xep bu kenn yéem na ñëpp def ni sëriñ Suley Jaañ ñëpp def ni sëriñ Muntaxa def na ñëpp def nii ngir lan ñu taxaw bokk yi nga xam ne dañoo bàyyi seen lépp ngir lan wuyi si jàmbaar yu lislaam ji di sëriñ Tuubaa Séex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul kon jërë jëfati Serigne Souleye Diagne jërë ngeen jëfati yéen ñi nga xam ne waxtu wu nekk saa bu commission sociale bu Touba ca kanam gestu gisleen ba ci yéen ñi nga xam ne am ngeen yéene jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi yitte kese la bokk yi kon ay ca mburit bu kenn xeeb bu kenn yéem